كده الحمد لله الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله من غير الله ابن خليل هذا مزارع عندي رسالة ak soññi la mm-hmm. ak jaajëfal la mm-hmm. ci tur yoonu nga yëpp mm-hmm. ndax doxin bii ngay dox bi ngay liggéey day war ñëpp kon nag ku ko mënoon nga ko mare yow mi ko def da nga ko defaale kon nag jaajëfal la mbir yëpp la wax loolu dama leen ciy wuus nag xamal ne fi teg sa tànk ngeen soo xam doom yoo xam ne ku leen am ci aw xeet dañ koy sant yàlla doo koy sant yàlla danga tax na nag yëg yëg war na ma waxtu ne war na ma sax waaye nag tey moom jëm ngir jaajëfal la ci tur ñoo bokkal sëriñ Tuubaa ñëpp sax laay wax ak bi ndax bokk ci sëriñ bi xasida yi moom fi xaalis lañ ko tënk lii nag moo ko ci dolli ci loxo bopp ñu ne jàpp naa ne sëñ Mat Lamin Jóob wala Basiru Si kenn ko ci bind nga xaw nuru bind waaye sëñ Mat Lamin laa ko tax bay lii nag dama dama koy xeetaleeg sa mbir moo tax ma tànn ko si dem himmati yartaqat li xidmati nabi xidmata tabshirin safaatuna bi maxa nabi yul muntaxa tazabzubi وجه لي إياه ليلتي يبي حقد حماني علها ويبي نويت إرداء الإله والنبي شكرا ولي ربي سفيت نبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك